daal rek ku ak sa hmm. Sénéginja numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. pour Yini Wadjal waajal weeru koor gu sell thermos ay 2 HP Grand Bazar Dal Dou hasard. teraanga ak ponche la fekk baax seetaan programme à quoi son de de teral ak di seddal xol yi ak Punch rek teraanga fii la fekk baax. Commandez en ligne au Royal buuru S'engold, une nouvelle vision de la bijouterie.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 MT Couture, Mam Tcherno Couture, des costumes africains sur mesure avec des finitions exceptionnelles matidi.com I challenge you ñu dem Global Textile Assane Parcel Parcelles unité 12 Tu wetu Sénélec ba gro gros ak demi gros Ara by Soja Business Adel Couture Yamina Collection Ba Beauty by Eben Jili Fashion M60 Binushka Iba Couture Najalija bodom rajulah. sa liggéey ak liggéeyu kër gi soo moytu di nga feebar. man maa ko choisir donc il faut que m'assumer d'accord mais t'es pas obligé ngay tok à chaque fois soo liggéeyu des fois m'en nga commander ou bien même nga wax Xadi wala Leila ñu le la soo guddee. ndeysaan gox si kër moomin la xamul dara. bébé je le dis juste pour ton bien. et puis pour mon bien aussi parce que fan yi da guddee ñëw tëdd di xandoor mënuloo mu benn njëriñ ci lal bi neexatul dara. yaa ngi door a wax sa soxla. waaw hmm. ngi ñëw dem de damay déposé. Euh, est que doo xaar ma defal papa soom bi woon bi après ma yóbbu la. damay tardé bébé ba ma dem jël njëge jaay rek comme d'habitude. xale da ngay der léegi. dama xam ne nga moom sa oto ba pare à chaque fois man maa jëndee sax xam naa damay mujjee yuuxu rek. da nga bëgg Tu c'est quoi tu hmm, bonne journée. va bosser. Mhm. Ah, d'accord. ça marche mon cœur. bisous. bisous. Hmm. bonne soirée. <laughs> وماما سافاسير هناك سافا الحمد لله سافر بي واجهنا كي بابا لما قدر اوكي داكو سامر بابا احنا امو بروبلم داكو len danaa la ko yëgal li nga nekkee ni man du ma ko seetaan de caam yow lii ba kañ yow laay waxal xale bu ndaw nga bëgg sacrifier sa vie fas yéene sëyi koo xamante ne noboo ko tey noboo ko suba loolu man duma ko seetaan de Layla bu ma ne Layla amul Layla amul dara yow donc yow tu es sérieuse man maa ngi toog di la seetaan foog ne di nga wut solution defoo ci dara man maay kii dem wax ak papa nag lu leer leer laa la wax ni midi say doomam bu fi amee. danga may may ma def samay propre erreur yow mi amul lenn loo fi deful yow lay laaj. yow Khady Thiam. def nga fi bu ne su nekkee danga may jàppale ngir yàlla jàppale ma ci samay propre choix ngir yàlla rek. sa choix yu bon yi de bu soobee yàlla. allo. waa si man la d'accord c'est bon. wuy ma waxuma loolu dama am samay soxla yu may joxe jox ma sama saak. waaye lu leer nag laa lay wax tant que man maa ngi tudd princesse Leila Thiam lii duma ko seetaan du fi amee sëy bi moom bu ko sa xalaat indi lii ngay ñàkk ambition waaye Bakir tayi keur gi mom rëb na de keur gi de jaxaso la def yow mi ha keur njuga gi de rëbëjoo na man de musuma xam ta umu ni la amé safara daay lay la wayo mi du yow lay waxal ngay mut mutal ni muut mutal la lan lan lo melni ni ku ñu wiskaari de dama yàkkamti ya, rek dama wara dem rendez-vous urgent ni ci bit place ba Kilaan kilaan mag momay xaar yow wax ma li may doy rek te nga yewi ma damay dem. tay li ma lay doy wax na la ko li jot mom jot na ginnaw de xam nga ni yef yi ba pare. te dama bëgg sagal sama dom ji nefal ko end time bu ne mut ñu ñaar seen xel dal na de. wayo bu dee sa yaay ji di xiru ci bir kër gi melni ngay ndé bi koku man lijjantiwuma ko faa la yëngal waaye pa man man ferñeewu ma ñeente. dafa jógee feulé sa naar yi xonk lan la poussé nga de yow. yéen am ngeen seetlu ci seen doom. lan moo dal xadi. seen doom laa leen di wax de. ki ngeen jur. lu xew. xale bu ndaw bu musul sëy war a sëy ki mu bëggantee am comportement bu bizarre bii. elle n'est pas yéen da ngeen gis bonheur ci kanamu xadi caam ah yéen daal seen intérêt rek ngeen di topp seen intérêt rek moo leen ñor. waaye looy wax nii man laa bëgg a xam yow. waxi dof léeg laa daal bi mu tax fii boobu ba léegi daal waxi dof rek la fiy génn ci gémmiñam gi. yow xale bi yow sama doom ji Khady Thiam boo ne ko jàkk nga xam ne kii ni mu mel nii musu koo mel kii fi mu ne mbëggeel moo ferenkulaay ci biir xolam boo ko xoolee rek xam ne mi ngi bëggante piir waaye yow nag duma la balaame de ndax mbëggeel moom dalaa rëcc daw sori la ñun ñi ñoo ko xam maa ñoo xam lii ñoo dund mbëggeel de laaj ma ko ko dundul nag xamu leen sax li xew c'est malheureux gis ngeen Khady Thiam mii eh, dafa calme-toi dalal fii mënoo fee wax lu ñu lu ñu xamul ñun lépp lañu ñu xam daal ci toog nag di ko gérer yow mënoo fexe fexe fexe fexe ba xadimi du sëy ak Ousseynou te yow nag léegi am na loo jot a nag xam nga luy déception yaakaar naa ne ci àdduna yéene woo ko nit rawat na sa doom ji nag. yow nag ba Bakir Thiam nag da nga yàq say wax. Hmm. déception fi amul sax di. Ah. xam nga lu ñu woote ñun bonheur la ñu woote ak anytime nag bu ne mu wut. man moom laa woote man. yow da ngaa xaw a ëppal yow. ay entertainment yëpp yàq la kan sama benn bu jigéen bii hmm. kii dama koy entertainment ba génn boîte vocale génn laa yow eh, de ya eneew ma waaw wax nga dëgg de doomu député moom da ngay def lu am classe kon nañ diine mu yow lu ñuy diine déggoo ni xale bi wax ne la entertainment ah waaye nag yow nag lii nag ah waaye yow entertainment ma wax yow loolu yëpp pour bañ a génnee barki yu may baaba Bakir Thiam kaalisoo yaltat Caleçon la waxuma waxi kaliso yal tak par A ou B li ngay nga par sik nga way yow. Leila may dégg fo jëm ya xadi. gis nga dama né merde. gis nga sa yëfu seytaane yi yow fi nga may fekk yow duma la wax ban heure a jot. maag yow. kër gi dina saf sap yow dina melni mbaxalo awra suma la ko xé rek gëm ko. yaakaar mbaxal.

xam dañ naan da ngaa nga xaw ma. lii naan la. sombe yëkkatil. somme bi pour lan. papa laa ko defaloon pour mu ndekki. désormais fii maa fiy defar ndekki di fi defar li ma fi war a defar yaa ngi may dégg. sa jëkkër jee wow kongu bay mel ni li may bañ a tudd dee ko defaral ndékki di ko toppatoo li war ci moom nga di ko def est-ce que dégg nga ma bu baax te lenn naa la ko xamal dégg naa tey yaa ayewaat foo mënti dem ak loo mënti lijjanti je m'en sama yoon nekku ci mais reer bi moom na ko togg à taaj ko à l'heure dégg nga bu baax. noonu it. loo wax nii. ma ni bëggal rek loo bëgg nay jàmm. waaw loolu laa bëgg nay am ci kër gi. Papa. Nakam. Ça va, alhamdulillah. Papa, maa yi dem liggéey. Waa kay dégg naa la yàlla. Nangu naa ko. Merci. Dégg baa ngi nii sang bi. Nan la lu xew ba jàmm. Mbaa sa meeru keroog ba ba léegi moom nga bëgg a continuer. Est-ce que xam nga lan moo tax keroog waxuma dara. Dama la bañoon tuutal kanamu gone yi. Mais yow xam nga ne ni ngay dunde nii. su continuer yow yaay muju tutal sa bop ci kanam xalé té su boba man dara la ci dul man wona la ci sutura waxna la lan la bëgg néna la dama bëgg nga jappalé ma ñu gungé ko yi ci nek dé de déedéet jege woo ko ben yoon nga ñew indi fitna ci biir kër gi té wuyuma dama bëgg nga dama foko ni danga may jappalé indi jam ak salam ci biir kër gi mais su fekke damay wax deug rek ta yalla tax soxna may li la la mëne woon entre salaamaaleykum aleykum salam. Gor gui nañ def sono bu ah. boo pare rek ñu dem mën nañu dem Wa do nan sa soupe bi sax Wala ngay dem jërëjëf aw ma petit. noppi day d'accord waaw man waxuma loolu de hmm. ma laaj la lan moo tax yéen seen yaay yi par force dañuy sonal seen jabaru doom yi daa ah. jëra laaj loo xam ne moo jiitu sa juddu day mel ni rek nga doon ma laaj lan moo tax papa yi duñu fiire bu ñu demee di doxaan seen doom hmm. Hmm. loolu dafa bokk boobu farata duggagul ci waaye sëy xoolal sa maam li mu def ci kër gi rek mais bi dafa capable de. te ngaa bàyyi mère boobu yi nga mag buur la mag lu mu def noonu la. Hmm. kenn du ko jugé. bàyyi naa sa maam kaanu kaa ci sa yaay sa yaay lan moo tax mu sonal ma. xoolal man damay liggéey quoi say questionnaire yu bëri yëpp mënu ma woo tontu. Ah. dèjà man damaa diis gan instant damaa kuule xam nga sama xel mi yenn yi mënu koo xalaat de. Omar yow jaaxal nga ma lan moo tax yow nga doy waar. non ma lay wax rek yow bizarrement xoolal sunu génn saa moo dàq sunu sëy. Hmm. sunu génn saa mën nañ jekki saa jàddu ruux. am ñaari taraxlaa yu nii ñëwaat mais. wax bu ñaaw danga ko mën waaye wuyu ma. pare tey ñu dabe. tane naa. waatal. Ah. kon tey nii la moos. lu neex. tasal sama lal bi dinaa ko la laaj teral nga ma. yaa ngi may tooñ. yaa ngi may tooñ damay xëy. bébé tey ñuy dalos la ñun dañuy bëggee yow laa am. bébé faa damay sonal na bu gay waxi noppi. nga ni ma. di wutum njaboot waaw wuy ma eh bébé. waa eh yow tamit. xanaa xanaa xamoon ne ñam boo gis. tàkkamti ko moo ci dàkk. est-ce que doo liggéeyi ma jaat def ay courses yu doy waar ñu daje fi tey si guddi. moom baax loolu nga gis yow loo bëgg may jàmm na buggee moom xool daf ñuy may jàmm par force maire mhm. bi moom bu naree andi ay binki jànk ma delloo ko këram léegi yow del bëgg rek yaa ko fa am man yow laa wóoru guerre la hmm. le combat tant attendu xool damay wàcc rek àndaale kanamu gaynde nana ah, oh, ak moomin caq ak gaay moomin bu jaay sa ka jaaba ka jaay waaye eh bu laal cos de boo laal may doon muus yow doy nga waar mais Faa papa ko journée bi day gaaw yàlla subhaanahu wa taala naa la yaan naa génn rek 18 heures ñibbi si waat wuyaay Faa mën na lu naa moom kii du sax nit an sam papa sa papa xëy na xëy dem fan soko bëggoon xam dangay teel a yow ñëw toog fii dégg ma yow lan mooy sa problème. yow laay laaj luy sa problème. non non nañ waxtaan nag dëggantaan doomu jàmbur bi nga jël rek bañ ko ŋànk ko rek ne doo ko yàbbi pour lan la. est-ce que yow mën nga maa dimbali yow ak faa te ngeen bàyyi ma. faa ci boppam maak moom dafa yàgg du léegi si di jënti sa bopp. d'accord amul benn problème mën naa comprendre sax. bi mi bi ñun ñëpp ñu yaakaaree moo yàq sama mariage mais dem nañ ba xam ne du moom dem nañ ba xam ne ne manigance yi fi jotoon am yëpp Bambi la mais lan mooy problème bi bàyyil doomu jàmbur bi. bàyyiwuma ko comme que yow yaay saytaane bi di rëpp bi ànd ak moom di def li leen neex di wax li leen neex may wax nga ànd ak Xadi Caam ànd ak Buso ne yaay bu ayee yéenay dugg ci waañ bi ràng ko waaye tey maa ngi xaar ba gis kenn ci yéen ci waañ bi di ngeen ko diggaaleek man seytaane yi ngeen doon. yàq nga say wax de faa maa ki koy toggal noqosal ba mu saf waaw faa sama rakk lay séyal te xalil man maay magam ça veut dire faa sama rakk la dama koy toppatoo comme il se doit bëgg naa nag bu ëllëgee bis bu ma demee sëy yi ma am ku ma toppatoo comme ni may toppatooyee faa maa dafa doy nag. <laughs> yow da doo say doom respecté woo ndey respecté woo baay respecté woo say waa kër yow bis bi ñu lay ñaan si sa warugal dama koy xaaj delloo ko ndax dinaa xaar ñu ñëwaat jël si la war ñu laaj si waat seen goro ñàkk jom bay bëgg a dee yow da ngaa mën a togg wala nga mën a yekk wala nga mën dara tu vois pas ce que je t'ai dit là récemment. Je suis dans mon espace professionnel toi aussi. Eh, mon espace professionnel ak ñaangal professionnel loo ñaangal jàpp Tu waa reetaana. reetaana yow tamit. bonjour. soxna si yow tamit ni lañuy duggé ci bureau jambour. yow kii kanati la ci sa gel yi. Leila. bon bref Mama néna soy wacc nga jël ci sa jabar otoom dafa paan. madame. mais yow lan moo nga wéx dunk? bizarre moom sa gel ñepp bëgg xam sa jabar gel bi ci gel yi bon à très bientôt kon yow depuis bobu ba légui da nga am jabar té man xawmo est-ce que mu nga calmer aussi si lan lay calmer

gis nga man soo mën yokk xalaat damay dem yóbbu la ci xale yi tëdd si crèche ba fële nga dem seet suñu baby sitting la foofu am na moo doy sëkk baax na. ah c'est bon kay xool bala may dem installation. Leila. sa xool bi nga ñëw ñu dem. kaç kaç kaç kaç kaç kaç Rajagin kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç Rajagin. bëgg yow man ma laa mere. mujj man bàyyi sa affaire xale yi lu ma def. du li nga ma waxoon. lan la taaw defati ak yow itam. yow yaa ma waxoon chaque jour dama lay gis dangay ñëw chaque jour waaye jàppal ne ñëw nga tey dootoo dem boo naree dem sama feri laa lay la ma taq la sama ndig. wuy ma eh dama nekkoon ci business yi yoo xam nga ne gérer xaalis bari yomb. dama doon xaar ba lépp ne tekk rek ma soog a ñëw jot bariwul eh xoola bàyyi ngay def nag eh neexal ma neexal ma ayu neexal weesu li ma la def dal joxataan ni neexal ma eh nga nag yow xam nga lu ma bëgg ma bëgg nga toog nag ne tekk bul bousé e met tay nga xam ne ñee ñoo mun lawbe nga ni la mooy yow nga def ma bëgg nga jàppal ah, ma tax tay nga yëgal dëgg ay ah, tay nga yëgal dëgg ay ah, tay nga yëgal dëgg tasba rëgit kaay. Eh, lii lan la nii dafa eh, ndànk dara commencé gu. kaay ndànk dara commencé gu. maa la wax la loolu. kay waay nga am ay maa la wax li lan la. déggoo kuy fëgg. waaye eh, kuy fëgg ndayam nga naan ay kay waay nga kuy kuy fëgg. ndànk dara commencé gul maa ngi ñëw ak man lekk. Ah. xaar ma.

waaye nag xam nga sama jëkkër ji moom lu ma ko yóbbul faaw ma ñëw natt ko ba xam ne jàpp na ma belli jongo ma doo ko mën a yóbbu du dëgg. xool laa ngi seet jéeg bu ndaw day sawar. <laughs> yaa ma gën a xam bëgg daal yi la comme sax ni ko gisoon si live bi. lii mhm. nag manteau la. Mm. deux pièces sax bu la neexee laal sa manteau bu la neexee laal sa deux pièces jaagar jaagar. comme da ngaa sawar. dama laa wóolu. dëgg neexul rouge. rouge danger. bii nag blanc la. ama blanc foo ko dégg nag da ngay woote jàmm laa bay yëkkati drapeau blanc bi ci kaw. dëgg neexul. ay waay naa law be. yii lii faw ma def ko ak teint noir bi day ànd de. bañ a ànd j'aime bien. lii mbaa am nga ko. muy doy na waar de. <laughs> te danga koy ci mënoo de. li nak ñu bari dañoo yaakaar ne ne xolal pour dóor la déedéet jëkkër sang la kenn du ko la xolal bu tëddee rek yëkkati waaye ñu jógee ci suuf jëm ci kaw dëgg neexul demal essayé yooyu en attendant bo ñëma ma la yeneen produit lii kay laa rey oma cha jeex na tan na ko tànn xolal bo génnee ni nga dangay jël sa tout droit nga jël sa gauche amna chambre bu nekk foofu dëgg neexul la ya jongu ma nak ki fu nekk moom itam moo tax jigéen baadoo la rek waaye tey doo rëcc de tey li nga xam ne duma tawul gisuma ko waa Pape Bakir Pape Bakir ee yow taan fii fi looy def fii Pape Bakir looy def fii yow eh, eh, eh, yow looy def fii jëndal sa gauche nga dugg fii ñëwal. ah waaw nga bëggee dugg naa. jàmm ak salaam. jàmm ak salaam kay.

numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Pour que chaque trajet soit une victoire, rendez-vous dans les stations-service Orix, powered by Africa. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best.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

xool ma ci bët gis nga sa xol bi sa dix rek a ci nekk bàyyi sa xel mi ngay fooyee te bàyyi sa bopp bi aw léegi yow da ngay fen xaaral <laughs> mbaa ma liggéey <laughs> dama tiit di ma la sax waaw yéen nu ma ragal ay ñombor yu rëy dara ñombor jàmm

daa lépp yemb na mbur ngir ziar bii di ñëw. Ah, man di mbir mi man mii ko sooke man mii ko jiite dafa mel ni yéen ko gën a bëgg ba tax yépp sotti na. macha allah yéen ci dugal seeni loxo. macha allah na yàlla mottali. amiin yaa rabbi naka njaboot gi. Ah, sang bi mbiru njaboot googu mooy indi sax ndax sa dix la àndal ak ibnu waaye jafe-jafe yi ñu jamono yi tar na lool. Saddeex li muy jànkonteel jamono yi bëri na góor yoo xam ne su daloon seen kaw ba léegi sànku nañu Ibnou Thiam nag mbiram daf ma dépassé lool alaaj njuga xale yi boo leen bàyyi woon ñoom ñu ñëwal seen bopp mais nag dafa mel ni yow mii da mi am jafe-jafe dëgg yàlla duma la ko nëbb ndax keroog bi soxna may dëddoog léegi c'est la première fois ma jaaxle jaaxle naa lool xaw ma nan lay def ba njaboot gi duñ ma rëcc xaw ma naka lay wax ñoom ba ñu bàyyi wexante bi ñuy wexante daa am nit ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. ni sang bi omar daf ma fekk ma toog ak soxnaam rek mu bëgg maa rey mu ne ko gis nga omar moom dafa fiir rek di man mii di wax ak yow maa ko gën a fiir te suñ boroom azza wa jël ñun ñëpp moo ñu gën a fiir dégg naa la bu baax cofeel gi ma am ci gone yi saa yu jëmee ba jéggi daayoo rek dafay mel ni suñu boroom daf ma ciy teg nattu yàlla azza wa jël moom mooy yelloo mbëggeel moom rekk fi ne moom la ñu war a adorer. koko ma tee bambi samandana ya ma tee bambi bambi Chérie. cest yo dire tax nga nek imbécile avec tous mes problèmes waxtaan ak man jàppale wu ma waxuma dara pourquoi. lay ziar bu baax waaw man de dama bëggoon rek dalal sa xel tiire sama loh, fi yàgg des na ci yow mën ngeen maa jiitu ci oto bi maa lan moo xew. dafa tàggalu ko ak sëgam. kon da ngaa bëgg wax dañoo liggéey sama doom. dana am lu ma la jox. dalal sa xel. waa xam ne tamit doo toog tuuti lan moo la fi soof. kon diine bi xanaa dañ koy njuróole wala. xet yi diine demain bi dañ koy njuróole wala si si pourquoi pas idée la de ça va xool ma ci nga xool xoolal bul am dara loo ragal dégg nga Aïssatou yow doo nuyoo. nuyu naa leen yow la nga may xoolee. eh fan nga jëlee blouson bi. yow lan la sumbil laa wax sumbil lii. seen yow lan la. bëggatuma gis sa der tegu si lii yaa ngi may dégg. yow kañ nga ma commencé di tere sa yére. bokk mag lii dara di du sama yére. waaw. yow dafa mel ni da nga commencé am problème yow lan la Ousseynou ah. eh waxal ak man tu sais que je suis ta petite sœur tu peux tout me dire waxal ak man Ousseynou li ma trahi lan yëpp yag nga ma ko wax Hadi Thiam mi fi jóge léegi nii et eh, sumbil lii lu tax ngay continuer di frek ba nga xamee ni dalay tromper Aziz sumbil lii putain tu me tu me les mets à la fin non bàyyi ma la la wax lu ma neex laay wax léegi nag moom li da am rapport ak kim lay tromper sumbil sumbil t'es pas sérieux quand même nga dégg li ma la wax lii duma gis nga laal ko yaa ngi may dégg. yow yow mënu yow mënoo boole ñàkk ngor ak ñàkk fayda xam ne Khady da lay trompé ba tey nga toog ju continuer ak moom ba tey pour takk ko da nga koy takk. yow li nga waroon def yëpp def nga ko nga ci ngalaam man mi kay maa woon benn dof topp sama mbëggeel mi lii bàyyi ma gérer ko à ma propre manière. mooy tu tombé si propre Aucun risque. Aoucha tey ki ñëwoon di inscrire ñeesam bi kan la. kooku bokk na ci ñi ma jàppale woon bi ma génnee kër la. ngeen dajawaat tey. xawoon <laughs> gëw ma man tamit.

A demain, Inch'Allah. Aïe, Warte, ça m'entend. Warte, warte, warte, warte. Merci. Rentre bien, bisous. Bisous. yow fifi nga ne bo melo na nga wara mel nga nek jeeg ju bax waye nak comme yow jegen nga do jeeg <laughs> moo tax mënoo matale dara wax nga deug man jegeen la ya jeeg bi waaye waxuma lol de papa bakir ci do nek nak sa journée tay ba nekhon na sante yalla ak sutura su bari surtout nak surtout la <laughs> man bala ma dee nga di ma tontu di lok sa lamine mama yow yaa jagate ah man ma jagat wa baxna dana leer mayil ki maag yow ci kër gi ah. dana melni mbojum gerté yow ndel la lay won waxoon naa la ko nga weddi ma ay ca rek on y va yow na bay ki bàyyiwuma mako yow wax nga wax ba yaa say wuji peccor ga ba ñom ñu dem bara kër gi di nga may xalé bi jamm nak ya wax li ci nga defal defante legi yow ya wax li ah, dina wax leneen way ay ah, dama eh, du wax waajee lila la caab Yo nang man nga man nga man nga ñaw man de ba nga takkee sa ndigg li mel ni ku jëm xare ba laa xam ne tay ding fi def lu toj foog ma jël ci pomme terre bi sul fi ben. kon yow Leila ya jaay ya, setané bané da nga tok reer non ñu tek. Ma togg ba muy mom. mëq rek ma mu. ah ee goro moom yow yabaate woo modéré sa langage nag Ah wax waxat nga ni li neex na yow saf na de Eh Leila, eh yi doom mbaras Yen da ngeen di reer nekku len ci tànn biir Lilou ça va fa fa no. mbaa jàmm la nuñ koy déggee faa tey lañu fi ci suba ba léegi du lek, du nan, du dara ñoo ngi ni tok. mais yaay li xana du reer dëgg dëgg. lii du reer reerew ma li li di togg la bëgg. lii mbaa massa jamm la. dama bëgg nga dimbali ma yow. waaleykum salaam. ku ne ko. baal ma de sama auto mo pan lolo tax ma xaw a guddee maa e jégalu bu baax. waaw merci beaucoup. fa auto bu pan ci suba bi nga génnee ci kër gi ba léegi ma ngi ni tok di la xaar gu ma wayay xana nga am yërmande ci nit kuy soko wacc sonu xana au moins mais mama umu nga bal ma mais keur gi doxewul non de yow dama bëgg nga dimbali ma sa bobu reuy yow ya may wax keur gi numuy doxé na nga lé nak inina na ay nem ak crevette donc je pense que ça devrait aller dama né fa lekuma nem lekuma crevette xanga lan la bëgg nga dugg ci wañ bi togal ma ba mu neex yéegalal ma ci kaw ma lek ba sou leena sa yaay est-ce que nana garabi tay ki ay garab eh. da eh, ko jëlou nak eh bo waxa waxate damay de. aljana sax mo nek ci souf tanku yaay nak li de lañ ma meuna ñoom ñaar ñu ne kewu di ma xulli bët. jabar neex na ay yaay neex na de. ngay màgg sa ndey nga nga ëbbali de am na loo ma digoon tey suba de lan laa la waxoon que tey dinaa yuuxu ba suñu waa kër yëpp génn daa ma ko digoon looloo taxoon nga nekkoon di ma jàppale si waañ bi parce dangaa bëgg yuuxu boo man dangaa romantique sax romantique yooyu jeex na de depuis premier mois wu mariage ba léegi ay petit déjeuner au lit ay fleur affaire yooyu jeex na tàkk yooyu sax laa ne ma fan yi mani nga ñëw desee rooma laa wax ay sa caaxaan ah, biir bi may dem ci douche bi wuy nga nag xam naa la te ma dugg rek ngay nelaw mais bu mu ñëwee dama lay yee et dafa am lu neex lu ma la war a wax nelaw de waaye tamit tey moom Termo deh de pulna. waa koro yaa boyal nii ah mau itu lakk nag Ya mën nga jadi cuman ya yow fifi ah Wah, wuyu ma tamit mer xam nga man dama laa bëgg damay bañ nga jël sa andi xam nga andi dafa yàgg nga dugal ko si néeg ah, hmm. bi néeg bi lakk yow tamit nag. man sa yii dafa longtemps. ma la musuma laa bëgg. ñaaw na damaa bëgg nga génn ci man yow. ñaaw na daal waaye moytu lakk la. dëgg la bëgg góor ak sa bin binu xale yi nga. damay sëy nag. damay sëy bañ la ruggee ba nga set. xale yi koy def. damay sëy. me diga o nome do Bato primeiro. ai, ai, ai, ai. Bonjour. Ah bon Ça dépend de toi. yow la kat. je suis l'assistante personnelle de madame Fatou Ndiaye. ah assistante là eh ouais, ndaw kër gi na am ci c'est la première fois dans l'histoire. piccir ko bu le temps. même pas dans nos rêves. Madame Bonjour. Euh, je me présente, Françoise Badji, votre assistante personnelle. Hmm. Mon quoi euh, C'est votre mari qui m'a embauchée. Eh, Khalil Je nak. Khalil Assistant personnel. Aman ah, ma waru man. Je assistant. Jank ci kër je Eh Nab. Hmm? lu de la je Hmm. Lilan, hmm. assistante assistante Hein? Manam, garde rapproché de madame Fat Bintou Ndiaye ça va yo la kan ça va euh, je suis l'assistante de madame Fat Bintou Ndiaye avec plaisir Deng ko ni mu koy waxee nii Fat Bintou kon da nga am jank indi ko ci kër gi Yo Fat Bintou danga gis ñun ñuy dundé ni wala ñuy am jank wala ñuy def dara sa peccargo yi nga fekk fii gis nga fi kenn ku am jànq wala ku am dara ah yow Faa Bintu yow Faa dem nga ci front nag yow nag am nga fit nag te capable nga coupable nga. Mm. yow lu mës sa am si kër gi nga ne yaa ko fiy def. Mm. en Faa say wujju peccargo ngay jaay doole. Mm. waaw lan moo xew ci bi. lii day xew. Faa Bintu moo fi indi jànq. lu mës sa am ci kër gi loo xamante ni kenn du ko fi nangu tey kenn du ko fi nangu ëllëg nanguma ko tey nanguwuma ko ëllëg ndax xam nga lu tax mu def ko jaay ñi mu fi nekkal doole ak am-am ak mën-mën. ak wan leen ni moom moo am fit. Mm. wala moom la jëkkëram nopp. looloo tax faa def. lu mës sa am de ci ëttu baabel bi. yow yaay jànku faa bi. Mhm. waa kay dalal ak jàmm. Ah, ah. njaboot doom you laa